salaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi taala al akbari an al abdi alxadim wa an jamii awliyaa illahi almuqarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci turiful borom di wax bismillahi arrahmani irrahim di sant yàlla yàlla mi borom mi ndeefi tey julli di sëlmal ci gën a tedd fii yàlla yónni fi mbindeef yi te yónni ko mu nekk yërmaane ñeel mbindeef yi julli googu a law ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mboolem seen di ñaan ngërëmal yàlla di gën a màgg yàlla dotti ko ci kaw jaamu yàlla bii tey liggéey yaa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñu ngi nuyu yëpp nu islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yëpp ci bis bu tedd bii bis bi nga xam ne taarix du ko fàtte bis bi nga xam ne mën nañ koo boole ci ayaamillah yi tax suñ boobu naan wa bakkirhum bi ayaamillah bi nga xamee ne seen ubbi ji mu bokkoon ci naali Seexul Xadim yi ndax ak jumaa da koo mas a ñor gis nga sax mu naan waccal bu yóoti masajida yaa naafiyan man laa yakun sajida nga xam ne ca xafiyat raditu xanil mawla googu te ku dem ci irwa una bi ma nga fekk Cheikh Mouhamad lañ jël dagaana bind ko bi mu defaree ay ban samp ko julli ci woon jàkka te noonu yooyu ñëw fenk ko ne ko fii jàkk xawu fi sëñ bi amoon ci lu ko naqare ba wax maa saxa xal bi wa ahlal jan baax foofee la ko suñ borom dipi woon jumaay njaareem ak jumaay Tuubaa jumaay njaareem noppi ci nekkam jumaay Tuubaa nag mu bokkoon ci mébétu sëñ bi nga xam ne ginnaawam la ko suñ borom wattali dégg nañ ñaareelu xalifaam ak Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xamee ne moo jaayoon ak mbireelam jëndee kook taalibe dégg nañ ci waxtaanam mu wax ne Sëriñ Tuubaa nee na malaaka yi ñëw nañ sàkk ko ci moom ne ma mën nañ koo def wurus ndax suñu borom dig na ko ginnaaw malaaka yi junni yi ñëw nañ sàkk ko ci moom ngir defar ko waaye sëñ bi ne leen dama amul njaboot suñu laa bëgg defar ko nee na bi sëñ bi amee njaareen fukki at ak ñett wala lu ko ëpp tuuti wala lu ko yës tuuti noonu la ko Cheikh Mouhamadou Fadel radiyallahu taala anhu waxee ci la digle woon lii nii kon dafay mel ne yàlla dogal na ya ca xew xew ca ba 1932 euh, euh, ak Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim teg xer yu njëkk jumaa ji ñu nekk nii euh, ba 1941 42 guerre mondiale bi tax mu arrêté bi Cheikh Mouhamadul Fadil ñëwee nekk ci. ba 1963 euh, ñu ubbi jumaa ji nga xam ne nootaloo nag le 7 juin 1963 muy bis boo xam ni moom kenn du ko fàtte bis boobu nga xam ne ci la Cheikh Mahamadou Fadil ndokkeelal waajuram wa ne ko kama xat kunta taamuli wa xadima bihi hunita fi daari mahin fa kun fi nicmatin abadan muqima muaafan murtada seexal xadim yi kon bis boobu moo tey mu am tey ci ajjumay tey jii mu am juróom benn fukki at ak ñett waaye loola ca miilaadiya la ci atu e, jant bi la waaye waa juróom benn fukk ak benn ci atu jant bi waaye bu ci atu xijri day mel ne muharram bi ñu jëm nii fukki fan yi ak ñeent cay am juróom benn fukki at ak ñett di dund yonent bi sallallahu alayhi wa kon day mel ne euh, ci atum miilaadiya am nañ juróom benn fukki ak benn waaye ci atum hijriya am nañ juróom benn fukki at ak ñett yu manqué daanaka weer ak fukki fan ak ñeent su fekkee weer yi feeñ na waaw kon day mel ne kon fi ñuy wax ak yow nii am am na juróom fukki at ak benn ci atu milaadi yi am na juróom benn fukki at ak ñett ci atu xijri yu manqué weer ak fukki fan ak ñeent kon 14 muharram bii euh, incha allah mooy doon juróom benn at ak ñett ci xijriya ndax le 7 dafa toll fukki fan ak ñeent ci na lu ma ci yéen ndax sëñ bi ñuy defar Matlabul Fawzayni di ñaan suñu boroom lu mu bëgg ci dëkk bi dafa dem ba ci biir xasida gi mu tudd fa benn mbooloo mel ne mbooloo moomu la soxla ci biir dëkk bi Tuubaa mooy wal tus bi tam fiihi jamaatan tuqimu salawaat alxamsa jaxsan wa xasim soo xoolee ni ko sëñ bi defaree da ngay xam ne sëñ bi li muy ñaan yor ko wal tiis bi tam mu indi nuur tawxiid bu ne woon wal tiis bi rek mu doy waaye mu bi tam fiixi gi fiixi gi day dellu ci mi ko topp comme tudd ci albalat wal tiis bi tam fiixi jamaatan ñaan mu ko nakira loolu am na lu muy yëngu am na lu mu def ko fixlu mudaarix ad dallati ala dawaami wal istibraar kon mbooloo nii waxtu wu ne jamono ne saatu ne continue ma na ñuy taxawal na ñuy taxawal mu ne as salawaat def ko alif maxrifa bu loolu as salawaat dañ xam ne juri juróom la wax waaye mu indiwaat ne alxamsa li ñu tëjji bay bi bu yemoon ci fukki néew mu doy waaye ñu waat def ban ci dapte ci biir jamono Tuubaa gii na fi mbooloo nekk di taxawal julli juróomi ñu ne xaa mu ne yaa xakiim yow yàlla muy aju xereñ yow laay ñaan lii xakiim nag valeur bi murgam adad nafseem mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett soixante-dix-huit bayit yii bi ñaanee mbooloo mii ci Tuubaa ñuy taxawal julli juróom mooy juróom-ñaar ak juróom-ñett soixante-dix-huit bayit di loolu li yéene la waaye ndeke xakimu jooju sëñ bi dafa am lu mu soxla mbooloo mu sëñ Tuubaa di nekk Tuubaa di julli ci saxawal julli juróomi mbooloo moomu nañ mel ak dañu war a mel ak dañu war roy sëñ bi da koo defar ci ak xasida boo xam ne nii xasida googu ay béytam xakimu la muy xuqal bu kaaw jóor ñaar fukk biir ak juróom kon xuqa saxaaba yi ci sëñ di way te daana wax ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine kon mbooloo mi soxla ñu taxawal julli juróom mbooloo moomu jikkoy nelaw waa xuqa la war a doon waaye nag mu defaat ndax sañ ci daa bindal lépp rumus la ay isaaraat la rumusul yëpp suñ dafa am la ci côté gis nga bi ñu woy mën nañ foo seen di ñaan wal tis bi tan fii fi jamaatan tuqimu salawaatal xamsi dahban ci atum lafasin la bu gàddaa bi amee junni at ak ñetti téeméer ak juróom benn ci ñaan lii ñaan ko ci baytu juróom-ñaar fukkeel ak juróom-ñett ci matul foofu yi muy xakiimu mbooloo moomu lañ bëgg ñu mel ko ñu def ko ci ak xas yi boo xam ne xakiimu la ci ay déet juróom-ñaar fukki déet ak juróom-ñett waaye li ci gën a ñëw nag biñ la ubbi jumaa nga xam ne tey jii la juróom-ñaar fukkeelu at ak benn ci milaadiya di juróom-benn fukkeelu at ak benn ci milaadiya di juróom-benn fukkeelu at ak ñett ci hijri yi manqué weer ak fukki fan ak ñeent boo xoolee diggante Wakasin ba bi ñu ubbi jumaa ji ci 1883 ci gàddaay gi junni at ak juróom-ñett téeméer euh, junni at ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett soo ko xoolee diggante boobu xakim la ci ay at juróom bi ci nga xam ne ba at lay tukki kon bis bi bis bu màgg la bis bu rëy la bisub lislaam la ndokkeel ñëpp di ci nekkoon ndokkeel murid yëpp waaye di ci ndokkeel ndokkeel ummatul islam bi yëpp xam naa maa ngi yemale ci kàddu yi di dog ngant di jéggalu di baalu àq wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu